bu dee yaa ngi doog a seetaan suñu vidéo bul fàtte lay liker partager parce que ça nous aide vraiment. fexe gis nga Ousmane Sonko cëram ci biir réew mi kenn mënu ci dara bu waree falu wallahi wal qur'an al azim dina fi toog yii yëpp ay nattu la yoo xam ni yàlla moo ko jaarale ci moom ndax. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ndax pas-pasam ak ngëm yàlla ma tax may waxe nii parce que toog naa ak moom lu mu bon bon bon def nañu deux heures d'horloge ma xam nit kii ci moom tuuti ma di ko ñaan ma di ko ñaan ndax dégg naa ba ci soxnaam yi génn bu ñu génn déglu naa yëpp keroog sama rangooñ dal na sama dënna ndax dama jàpp ni nit ki loo ko bañ bañ bañ am na foodul yegg ak moom ndax yàllaay tax ak ëllëgay tax dégg naa ku tooxaw ci tale bi dinañ ko rey loolu mooy yéeneem kooku ñu bàyyi ko muy dox di taxawaalu ci dëkk bi façon wax bu ñaaw bu ne dégg naa ko ci ak xam moom ak li ko jiitu yëpp déglu naa ko dama leen di wax nag ñooñu nañu nañu nañu riggal gis nga firaaw na musa ci biir pale ba lañ ko yare te booba jigéen ju ëmb boo dee góor sa doom bu juddee ñu rey ko yàlla nag décidé ni moom Moussa mi ay ndawam lay doon mu jaarak moom fi mu jaarak moom ba xëy def ci moom li mu def ci moom suñu mbokki politiciens yi nañ ma baal dañuy bàyyi dañ dul bàyyi xel yàlla pexe lu mu rëy rëy rëy dogalu yàlla ko fi jiitu dogalu yàlla moo ko fi jiitu xale yi ni ñuy génne nii di def li ñuy def la ko waral du dara lu may kenn ku nekk am nga koo sop des fois dama leen di comprendre kooka nag bu leen jaralee lu ne ñu bëgg koo teg yenn yi bu yàggee rek dañuy fippu ni ñu koy manifester nag est-ce que ànd naa ci walla ànduma ci nañu seet beneen forme bu ñuy doxalee ndax yàq goo xamante ni bii tey jii bu président bi ngay wooteel ñëwee ba toog dafay commencé waat à zéro boobu baaxul beneen bi ci topp mooy Seydina Ousmane. dégg naa ñu ni dafa bañ a lekk bañ a naan version yu bare laa ci am ñii ni dafa bañ ñu dugal dara ci lekkam jox ko ko moo yey nag waaw ah, waaw nañu waxante dëgg rek ku kundobin rey samaam boo gisee lu ñuul dangay daw foofu mu tëye d'accord naa ci de bu dee loolu la rek ki la nar a fexeel nu mu def ba fexeel la ga dee rek dina ko def waaye bakkan ci loxo yàlla la nekk ma di ko ñaan ma di ko ñaan en tant que jullit en tant que frère en tant que soppe mu lekk lekku soxnaam wala ku mu ñu indil ko lekk na ko lekk man am na ñoo xam ni duma ma waxanteeg ñoom parce que bu demee am na ñoo xam ni bu ñu ci ci ñaaw jikko ba di fen di sosal nit nawloowuma la bay waxanteeg yow xalaatuma ko sax kon ñu koy ñaan te ñi koy def lii walla ñii tax ñu koy def lii jaruñu ko parce que Ousmane dootul moom rek dootul fameem rek neexula wax nag wala boo waxee ñu weddi ko dégg naa ñu ni dañu tas Pastef kayit lañu tas waaye li ci xol yi kenn du ko tas ça c'est la vérité gis nga nit ñi